mujjul barri barri saxaani yaa la barri yaa la barri delluwaat bu baax a baax rek di santaat mbokku teewlukat yi téléspectateur ak internet télévision mu fàttixul Bichri ñi nga xam ne jamono ji ñi ngi ak ñu daal di dal leen li nga xam ne moom la yéenekaay yi di faxataal di xëyee ci li nga xam ne moom moo di seen ay xët yu njëkk mu mel ni rek niki noonu dañuy daal di ànd ànd ak yéenekaay bi nga xam ne moom moo di Walf Quotidien mu mel ni rek yi ci xëtam bu njëkk dafa daal di ñëw jamono ji ci li nga xam ne moom moo di cas communautaire ñi nga xam ne dañuy farataal di am wopp ji di Covid 19 te du ñu xam amaana ana fan lañu ko jële mu mel ni fi mu nekk nii état bu Sénégal dafa fas yéene jàkkaarloo ko yooyu les cas communautaire ci ni ko yéenekaay bi indee l'état face à des cas communautaire waaye ñi ki noonu yemu ca utali na at bu jëm ci li nga xam ne moom moo di màggalu Mbàkke Kajoor appel des Layènes Poroxaan Kazu Rajab doon ay xew-xewu yoo xam ne moom la ñu fas yéenee dëgmal mu mel ne ni ki noonu ci la ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa diine yi les religieux ci ni ko Walf Quotidien indee ni kat dañu daal di xotti xateet li nga xam ne moom moo di arrêté bu ministre de l'intérieur loolu la Walf Quotidien daal di indi ni tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk ba tey ci biir yéenekaay yi ak li nga xam ne moom moo di le quotidien le quotidien moom nag ba tey ci wopp ji di coronavirus waaye nag daal di indi tey kàddu yi ki nga xam ne ràññee nañu ko ci xeex wopp ji mu di professeur Seydi professeur Seydi sans protocole loolu le quotidien le quotidien loolu la daal di wax mu mel ni sax ñoom suñu ay naataango le quotidien dañu daal di siq ak moom benn waxtaan ndax bu ne professeur Seydi ci fàttali moom mooy chef du service de Fann moom nag muy wax ni jamono ji li mu mën a indi mooy rek yéex gi nga xamante ni yéex nañu ko suñu dëkk bi ci daal di activé waat li nga xam ne moom moo di euh, centre de traitement yi waaye itam di prouver di wax ni amul lenn luy prouver ni jamono ji deuxième vague bi virus bi ñuy wax ni dafa dafa soxor wala dafa metti amul lenn lu koy prouver moom la daal di wax moom professeur Seydi laata muy fësal ni nag ni la nombre de malades qui ont besoin d'oxygène augmente plus rapidement que les lits maanaam daal jamono ji ñi nga xam ne wopp nañu li nga xam ne moom moo di euh, oxygène a li nga xamante ni moo war a tëdd ci lal yi loolu la yéenekaay bi di le quotidien le quotidien daal di indi ni ki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk ba tey ci biir li nga xam ne moom moo di seen café info ñi daal di ànd ak soleil national mi daal di ñëw ci profil de dix jeunes crack sénégalais mu mel ni ñoo xamante ni daal seen xam-xam dafa daal di màcc jëm ci li nga xam ne moom moo di wàllum fàcc le soleil yamu ca ni kat les chasseurs euh, de microbes du professeur Raoul mu mel ni rek ñoom ñëpp dañu daal di taxaw teem seen ay nataal yéen yéenekaay bi di Le Soleil daal di koy indi ñu di ay doomu Sénégal am ay projet en partage ba pare daal di taxaw temm rek ni kat fi mu ne nii la ñu gis mooy rek daal di ñibbisi ngir rek daal di servir euh, servir li nga xamante ni moom moo di Sénégal ba tey ci wopp ji di Covid 19 bi yoon moom Mamadou Lamine Diallo moo cay àddu ak directeur news mu mel ni milik moom la mu wax moom Mamadou Lamine Diallo ni kat ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr fi mu ne ba tey dafa daal di lànk ni kat du rend compte benn yoon ci koppar bi nga xam ne jotoon nañu ko teg loxoom ci bu daal di xeex. mbas mi nga xam ne moom moo di Covid 19 ci atum 2020 bi ba tey sax yéenekaay bi ñëw ci xayma bi ni kat mi ngi tolloon ci 64 jàpp 90 milliards de nos francs mu mel ni jamono ji ba tey ci ay kàddu yi moom Mamadou Lamine Diallo ca la nga xam ne ma nga koy yàq moom Abdoulaye Diouf Sarr jëwrin bi ñu dénk lépp lu soxal wàllum wér fii ci réew mi mi ngi fësal ni jamono ji moom kat Abdoulaye Diouf Sarr dafa incapable ndax nag jotul sax tabax ay centre de traitement ngir xeex wopp ci ginnaaw bi ñu gisee ni juróom-ñeenti weer ci jamono boo xam ne Chine ci diiru fukki fan tabax na hôpital boo xamante ni équipe na ko ci lu toll ci juróom-ñeenti junni ci ay lal ci diiru fukki fan mu mel ni moom Mamadou Lamine Diallo ma ngay woy ba tey ni ah nañu doxantu ji utali ca hôpital Dalal Jàmm de Guédiawaye wala ñu dem ca hôpital bu Fann de Dakar dinañu gis ni bâtiment yi nga xamante ni ñoo war a dalal les centres de traitement benn jéemu ci sax bay waaj a pare loolu la Mamadou Lamine Diallo daal di wax laataa muy wax ni kat moom Abdoulaye Diouf Sarr fi mu ne nii la mu teg gët mooy maire de Dakar waaye lijjantiwule li nga xamante ni mooy xeex wopp ji di Covid 19 laata muy fësal ni kat moom Abdoulaye Diouf Sarr jamono ji moom daal gis na ni daal ku incapable la war nañu koo teggil ndombal tànkam ndax gis na ni daal lajj na bu baax a baax ci xeex wopp ji nga xamante ni moom moo di coronavirus ba tey coowal coronavirus deuxième vague de coronavirus au Sénégal mu mel ni enquête yéenekaay loolu la daal di xëyee daal di ni kat l'équation des moyens la daal di wax mu mel ni le député Mamadou Lamine Diallo la daal di jële ci ndax moom la mu wax rek mooy ni euh, milliards de nos francs yu ñu alloué woon à la gestion de la Covid jëm ci ministère de la santé et de l'action sociale waaye ba tey muy wax ni benn expert la mu fësal mooy il faut financer les communautés moom jàpp na ni daal ngir xeex wopp ji di coronavirus bokk na ci financer li nga xam ne moom moo di askan wi ndax gis na ni kat ci loolee la ñu amee woon satisfaction ci financement jëm ci wopp ji di sida ak li nga xamante ni moom moo di mooy ni kat am nañu benn euh, bon euh, maanaam benn protocole boo xamante ni protocole bu am solo la boo xamante ni à 90 pour cent des cas jamono ji ñi ngi am li nga xamante ni moom la ñu bëgg loolu la yéenekaay bi daal di indi niki tey ci li nga xamante ni moom moo di xëtam bu njëkk ba tey ci biir yéenekaay yi ñu daal di ànd bi yoon ak libération mi des ba tey rek ci li nga xam ne moom moo di enquête bi ñuy jëmal ci meurtre ki nga xamante ni belge la nekkoon foofu ca Thiès ca borom këram daal di koy faat mu mel ni booba ma ngay woy ba tey ndax nag bii yoon dañu daal di jël rek aaw ba daal ki tey nga xam ne moo dimbali moo di ki mu faat mu di belge boobu nga xam ne dafa ñëwoon nekkoon li nga xamante ni moom moo di ñetteelam waaye tam libération yemu ca ma ngay fësal ni kat a aaw ba ma nga dëkkoon ca kër ga nga xamante ni kookee ñu faat moo ko tabaxoon moom ak li nga xam ne moom moo di juróomi bantam loolu la yéenekaay bi di libération daal di indi ni ki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk waaye ba tey ak Les ko moom ba tey daf ca daal di des mu di coowal ki nga xamante ni moom moo di belge bi ñu faat mu mel ni rek ki nga xam ne moom moo di aaw ba moom la ñu daal di jël daal di koy tekk loxo yéenekaay bi di kat les révélations renversantes de l'enquête mu mel ni fi mu ne nii ma ngay nettali sax moom ci yan anam la daal di faate ki nga xam ne moom moo di soxnaam boobee ndax nag ko daal di jox benn coup de waaye tam mu mel ni bi mu ko joxee coup bu métti métti ca la ñàkkee bakkanam ndax dafa mujjoon am li nga ne moom moo di hémorragie interne waaye nag ba tey ci yéenekaay bi ñu ngi wax ni kat moom boroom këram boobu dafa daal di nar ci ñaari weer yoo xamante ni maanaam euh, di lay rek li nga xam ne moom moo di policier yi waaye gis na ni ndekete yoo euh, section de recherche bu gendarmerie mujj naa am li nga xam ne moom moo di dëgg bi ndax nag ni ki démb sax la ñu daal di mujj dem rek jël teg loxo ki nga xam ne moom moo di soxnaam nekkoon aawam ndax nag dafa yëgoon ci anam bi nga xamante ni noonee la ñu daal di faatee soxna si di belge ba nga xam ne moo jóge woon ca tugal fii rek nekkoon li nga xamante ni moom moo di soxnaam waaye ba tey ci biir les échos ma ngay woy ba tey ci rek di àddu ci li nga xamante ni moom la ñuy duppee maanaam projet de loi loi la loi de ci état d'urgence ak li nga xamante ni moom moo di état de siège yéenekaay bi ni kat rien ne change prérogative du président n'a été renforcée ndax tak dañu jëm ci junjuni kat jamono ji dafa mel ne son excellence monsieur Macky Sall dafa daal di laal li nga xam ne moom moo di constitution bi laal yenn ci yoo xamante ni ay loi la jëmoon ci loi mu mel ni boobi les loi yéenekaay bi li mu fësal mooy lenn la ci son excellence moom mooy gestion épidémie pandémie ak li nga xam ne moom moo di inondation mu mel ni sax loolee moo daal di fexe ba Sénégal mën a rek xeex li nga xam ne moom moo di wopp jii di Covid 19 bi yow dañu daal di ànd ak Vox Populi mi àddu ba tey ci njeexintalu wopp jii di Covid 19 waaye mu mel ni taximaan yi jamono ji ñoom ñooy wéy rek di jooy ak yuuxu ndax nag juróom-ñetti weer ci tey mu mel ne nekkete yow lan leen joxoon ci 450 millions ngir rek ñoom itam seen secteur des taxis mën a doon loo xamante ni dina ñoŋ ndax njeexintal bi wopp jii euh, di covid 19 amoon ci ñoom dafa mel ni ndekete ñoom laa la ñu dara loolu yérekaay bi daal di wax les taximans de Dakar attendent toujours leur part ñamaguñu li nga xam ne moom la état Sénégal tegoon ci taabal bi ñii kat dafay daal di dimbali askan wi ci wopp ji ak njeexintal bi nga xamante ni am na ko ci Sénégal la waaye ba tey ci biir Vox Populi ma ngay àddu waat ci leneen mu di ay xew-xewu jamono les enfants incestueux des sans droit au Sénégal mu mel ni ñi nga xamante ni rek ay inceste ak seen mbokk yu jege-jege yooyu li tout tànk léeg-léeg bu ñu juddoo dañuy faxataal di gis ni maanaam code de la famille fi mu ne nii daf leen a faat ci li nga xamante ni moom mooy sur le plan juridique loolu la yéenekaay bi daal di wax ni ki tey ci xëtam bu njëkk laata muy addu itam ci série infidèle karma néegu sëy ak yu ni mel mu mel ni jamono ji nag Jamra taxaw na temb ngir xool nees mën a def ngir mën a xaax li nga xamante ni moom moo di dégradation des mœurs bi ñu nemmeeku ci série télévisée yooyu fii ci Sénégal Macky face aux dérives de Mansour

de Mansour Faye ngeen baal ma loolu tribune yéenekaay moo ko daal di indi niki tey Macky face aux dérives de Mansour Faye mu mel ni jamono ji son excellence monsieur Macky Sall ci bu nu sukkandikoo ci ni ko yéenekaay bi indee moom Alioune juge le beau-frère et ministre du président moom Alioune mooy àddoo nu ni mel ni kat fi ne moom maître euh, ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall war na arrêté ki nga xam ne moom moo di Mansour Faye mu mel ni moom président Macky Sall dafa jéem jamono ji teg li nga xamante ni moom la Abdoulaye Wade tegoon gët ci doxalin bi mu doon dox moom lay dox ndax nag a engagé moom Mansour Faye ndax gis na ni jamono ji wax dëgg yàlla moom am maître Abdoulaye Wade li fi def moom Macky Sall war na ci jël ay euh, leçon ba tey ci biir turbine Moustapha Diakhaté di addu di wax ni kat euh, maanaam jamono ji moom jàpp na ne lii di ville de Dakar loi d'habilitation euh, consolidation de la démocratie jamono ji daal fi mu ne nii yàq na lu mel ni xeme ki nga xamante ni moom moo di son excellence monsieur Macky Sall ci coppite yi nga xamante ni bëgg na ko indi ci fi nga xamante ni moom moo di réew mi les Layènes prêts pour la célébration appel Seydina Limamou Laye mu mel ni rek ñoom itam jël nañu date ngir incha allahu rabbi ci atum 2021 bi ñu dëgmal ñu fas yéene amal li nga xam ne moom moo di xew-xewu diine bu ni mel la mu mel ni rek dañ koy daal di këmmale ak réew mi quotidien mi daal di wutali fa nga xam ne foofee la ñuy xeexee ger mu di ca of nag ni kat lutte contre la corruption les limites de ak fa nga xamante ni foofee la of nag mën a yem loolu la yéenekaay bi daal di wax laata muy bi ci li nga xam ne moom la duppee <coughs> ngeen baal ma l'Afrique à l'heure de gestes barrières contre la démocratie mu mel ni jamono ji ci geste barrière jëm ci wopp ji di Covid 19 la ñu jëmoon waaye daanu jël yenn ci ay dëkk ci Afrique sow jant ngir xool nees mën a def ngir baare leen la route sinon rek dañuy daal di salfaañ li nga xam ne moom moo di démocratie fii ci Afrique sow jant mu mel ni rek loolu moo doonoon niki tey li gënoon fës ci suñu ñaareelu pàcc émission ndékki li mu doonoon rubrique seen fa jaaree rek di baax baax ci képp koo xam ne yaa ngi ñu doon ci li nga xam ne moom moo di xibaar yi xoxol biir réew mi ak biti réew mi à travers rubrique seen café info yee moom woon li nga xamante ni moom moo di àllarba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre atum 2020 mm-hmm. ñu ci santaat bu baax a baax di leen gërëm soxna Bintu macha allah soxna Fatou am na